réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu